jërëjëf merci beaucoup mbokk internetu des prod média des prod gannaaw ba ñu leen nuyoo coowal meurtre ba tey rek fii ci Sénégal waa jooju ñuy duppee Ibrahima Seck génnoon àddina toll na ci juróomi weer mu mel ni rek coowam dafa dékkiwaat ndax ñenn ci membre famille bi ñooy joxoñ baaraamu tuuma kenn ci ay frère ba di ci tuumaal tamit ñaari nit ñoo xamante ne ay xaritu frère am lañ muy benn mécanicien ak koo xamante ni moom la ñuy wax ne moom mooy faux gendarme bi moom moo daan bëlëfe mbir yi euh, coow loolu nag dékki ba xaw a yëngal famille bi ndax ñenn ñi nga xamante ni ñoo bokk ak euh, Ibrahima Seck moomu ndey ak baay ñooy joxoñ baaraamu tuuma benn magam boo xam ni yaay rek la ñu bokk di wax ne kooku moo ko sacrifié ndax benn seetkat moom moo leen wax loolu euh, seetkat bi nag ñu ngi wax rek ni mu ngi dëkkee ci Mariste waaye nag xamaguñu kooku kan la coow li dékki ba tey xaw a yëngal famille bi ba tax mu am ay juwatloo na ci ay kàddu ci magam boobu nga xam ni moom la ñuy tuumaal ndax nee na moom Ibrahima Seck këram la dëkkoon moo ko yor jox ko oto dëkkal ko yoreel ko léppam wutal ko liggéey amul benn intérêt di faat rakkam wala muy jublu ci lenn loo xamante moom mooy faat rakkam loolee nag euh, tax ba kii di euh, magu Ibrahima sekk boobu nga xamante ni moom moo génnoon àddina toll ci juróomi weer ak léegi di àndandoog ñaar ñi nga xamante ni xëy nañu fësal seeni nataal ci internet bi euh, di wax ni que ñoom ñoo faat kooku di Ibrahima Seck daal di jubali nag ci yoon tey sàkku rek yoon def liggéeyam ngir ñu teggi tuuma boobu nga xamante ni teg nañ ci seen kaw ndax mbirum bakken dafa foor rawatina ko bokkal benn yaay. coowal showbiz ba tey dakkul benn yoon mu mel ni ñenn ci artistes yi commencé nañoo sol seeni i euh, ngir fas yéene fëx génn li nga xamante ni moom moo di showbiz ndax jamono yi nemmeeku nañ ni mbirum showbiz jëm nag ci musique bi salte na salte goo xamante ni euh, jéggi na dayoo ndax yàggul dara gis nañ ci di doon jéego daal di génn ci benn interview di wax ci mbirum Wally Ballago Seck euh, di wax ni Wally Ballago Seck dafa ñeme ngistal ndax tàkkul maanaam lamp yi bu tàkkul duy faral di def yooyu xar baax nga xam ni moom lay faral di def moom doon jéego nag gisaat nañ ko yàggul dara mu daal di génn di baalu àq ki nga xamante ni moom mooy Wally Ballago Seck it di xamle ni na askan bi tëj seen làmmiñ di coowal Wally Ballago Seck ak doon jéego ndax moom doon jéego xam na bu baax a baax kan mooy Wally Ballago Seck ndax Wally frère am la te it lu ko wax moo ko sañ a moom doon nit bi nga xamante ni am sañu sañu ki nga xamante moom mooy Wally Seck te du réagir du ca toftal lu dul ay reetaan ak ci teraanga moom doon Diego su génnee wax loole ci Wally Balago sekk am na ci droit te bu ko neexee wax ko ndax frère la ñenn nag ci askan bi di ñaawlu kàddu yi Don Diego yooyu ndax nee nañu ko même su fekkente ni dangaa fay di wut buzz ci Wally Balago Seck mënoon nga génn def ko neneen nu bokkul ak noonu tey rek Ameth Thiou daan génn di defendre ki nga xamante ni moom mooy Wally Balago Seck waaye dafa mel ni moom Ameth Thiou xamante ni moom mooy doon jéego yooyee kàddu nangu cee indi ay leeral benn yoon lu ñu ko ci laaj rek ma nga cay teg ni moom doon jéego frère am la te it Wally Ballago Seck xam na kan mooy doon jéego kenn rek lay conseillé kii di doomam di Wally Ballago Seck ndax moom ak baayam la woon muy lépp lu ñu ko mën ci wax rek na def attention te ci tirer leçon di xalaat bu baax a baax lépp loo xamante ni mu ngi koy def mbirum Ousmane Sonko daal di yëngatuwaat bu baax a baax a baax a baax ndax kat nee nañu ci euh, ni moom la ñu jëm yamoog le deux kii di Ousmane Sonko ci la fas yéenee dem taxaw ak juge bi ngir nag ñu daal di jeexal benn yoon li nga xamante ni moom mooy coowam ci digganteem ak Adji Raby Sarr ci tuuma boobu nga xam ne tegoon nañu ko ci kawam waaye ñenn ci askan bi fi ñu taxawee woon la ñuy taxaw ayu ñu benn yoon kii di uh, Ousmane Sonko ñu koy xoqatal wala ñu koy fexeel dara rek loo xamante ni dana ci gis seen bopp ndax moom il est le futur président moom mooy ki nga xamante ne moom la sénégalais yi tànn fas yéene koo teg ci bopp réew mi gannaaw Macky Sall di firndeel rek di fësal ba tey ñoom askan bi ne troisième mandat du mës a am ci ki nga xamante ni moom mooy président Macky Sall it pare nañ pour joxe seen bakkan ci boobule woote nga xam ni Ousmane Sonko war na dem jàkkaarloo jeeg ki nga xamante ni moom mooy juge bi ki euh, semaine bi ñu dëgmal mu yemoog le deux ñu jeexalee xabaar yi nag mooy euh, jëmu jooju di wuyoo ci turu Mortal wala sax Mortal Sénégal ñu gën koo xam ci Mortal bu Serigne Saliou nekkoon nag ab cantaakoon ginnaaw moom moo fi joxoon ki nga xamante ni moom mooy Cheikh Béthio ab wota ba nga xamante ni mu ngi ko jëndee woon cent vingt-deux millions ci suñu ay koppar loolee nag juróon coow lu mag a mag a mag sénégalais yëpp di laajte kan mooy Mor Tall waaye moom Mor Tall ñu jékki-jékki rek kenn gisatu ko kenn déggatu ko gannaaw bi Cheikh Béthio làkkoo kenn ci suñu ay naataangoo nag daal di bindoon fësal am nataalam nekk Mor Tall moom mu ngi ci kaso bi jamono yi ndax dañu ko doon tuumaal ni dafa luubal ay naar yoo xamante ne ñoom la ñooñee nag daal di koy teg loxo ndeke yoo loolee lépp dara laalewu ca moom mortal mu ngi wéy di continuer ay business am nekk ci biir Sénégal yore entreprise am di liggéey ay liggéeyam ba tey di dem di ñëw comme ni ko ñëpp di gisee boo gisee nag moom mortal kenn gisatu ko ci mbirum ko nii ñenn ci ay jege ñaaleem ñu ngi ñuy xamal ni diggante kii di uh, soxna ayda uh, moom la munul gérer ak kii di Serigne Saliou ndigal cuun uh, ba tax mu bank ay loxoom ndax ñoom ñaar ñëpp ay xaritam lañ te buggul dem ci kii ñu ni kii la faral déet waaye moom mortal ñu bàyyi xel ni kenn tëju ko kaso teyit it mësuñu koo tëj mësula xam lu kaso di saf mu ngi continuer di liggéey ak ay partenaire am ba léegi waaye moom mortal nag moo préféré daal di toog ci rukkam ba kenn bañ koo gisati